kàddu yi ma yóbbante woon ci eh, sëriñ Bakhiyou Faye mii mooy ak cant ak ngërëmam ndax bi bërki bi la ma njëkk a woo mooy keroog bi sëriñ Bakhiyou yëkkatee caabi jumaa ji ne man naa ko ko jébbalal sëriñ bi ndax moom dañ ko doon liggéey te ab liggéeyam àgg na sëriñ boole ci àddee ñaar téeméeri million hmm. ne naa ko ko jébbale sëriñ bi ne da koy sant ci liggéey bi ko sëriñ bi doon liggéey loolu sëriñ bi nag yóbbante woon ba ci moom ne ma maa ngi koy sant di ko gërëm ndax moom sama digg ak moom dafa jiitu jataay bi dafa yàgg ñaan tegal ma ci ne moom dama am ci moom yaqin ndax possible neen dafa am ci yaqin te loolu man mi wax ak sëriñ bi ci biir xam naa noonu mu la ko waxee rek yàgg naa ko xam ci mu ne ma dama am ci moom yaqin mu ne ma liggéey si liggéeyal suñ tubaab bi tam li mu ko jaral ak nim ci nangoo sacrifice jëmmam xam naa ko waaye nag nee ko la ma ko waxoon rek neen na dalee bàyyi ak suñ tubaab bi ngay jëfen ndax nee na dara yow dara wëru la lu may sant yàlla ak sant suñ tubaab nee bu ci doon dara santal yàlla sant suñ tubaab ndax li ñëpp di sàkk mooy ngërëmu suñ tubaab nee na wóor na kon làq nga ko ci liggéey bi nee na kon li ma wax seere la ci kanam ay dit mu ne ma nee ko li ko war mooy na sant santale te te xam ne moom moo war a sant ndax lu mel nii ku yàlla def mu sotte ci say loxo neen dara wër loolu mooy fotool di sant Sëñ Tuubaa kon sëñ bi nee na mi ngi yeesal kóolute gi doxoon sa digg moom di yeesal positif bi nga xam ne xam na ko sa digg moom te bam la xamee ba tey dara mu si wàññi di la ñaanal Sëñ Tuubaa neen nam la ko waxee woon rek wax la ko ci làmmiñam nga dégg muy ñaan Sëriñ Tuubaa dëpp la kàttan dëpp la wér-gu-yaram dëpp la kàttanu jëf ndax neen li nga jëf ci jumaa yi te bëgg ko tudd xam na ko waaye nag nee na ka ngay jëfal mi mi ngi koy seere ndax seere si nit solo jëf naa nangam wala naa jëf nangam loolu yoonu sax minu ko waaye nee na Sëriñ Tuubaa ma tax ngay jëf neen tëg nañ sa bët ndax li nga jëf keroog li li li nga jëf te nit ñi xamuñ ko moo ko kon ñu ngi ñaar ci barke suñu Tuubaa mu mu yàggal ci kanamu liggéey bi ci kanamu taali kanamu mbooloo mi ndax kat nee na nee na ma itam moo wax la ne am nga tawféex ndax taw bi nee njëkkoo njëkkoon nekk représentant waaye nag lii moom yàlla def na ci sa loxo la sottee liggéey bi moom yàlla def sa loxo la sottee nee na looy doy na la sëkk nag mu ne ma nag kon naa la jotti loolu xamal ko taali bi. jëmmi li jëm ci saytu jumaa ji it mu ne ma bañ ñu tàmbali liggéey bi euh, ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñoo àndoon deqee bi bu Cheikh Sidi Moukhtar nga ànd koog moom bu Cheikh Sidi Moukhtar ñëwee mu jiital ko ci teg ma ci tegaat la ci mu ne ma nag kon ni ñu ko àndoon maa yow ak moom moom mooy borom liggéey bi jiital na ma ci teg na liggéey bi ci sa loxo ni ngi ko doon saytoo démb lu ci war rek lu ci war nga ànd ko bokk taal bi. mooy saytu ko ci wàllu entretien ak defar ndax xam ngeen ne liggéey bi dafa rëy la koy saytu yombut nee na loolu itam indi indi indi caabi yi jëbal kon yéen daal nañu ko yàlla boole woon ñu ñëpp nañu ko àndiwaat moom ba ci kanam suuf ñu ngi sant ñëpp di séentu ci li sëriñ bi di séentu ci liggéey bi li sëriñ bi di séentu mu war a nekk ndamu lislaam yàlla na demee noonu muy eh, dara ci luñ bëggul rek bañ ci am te moo ci am it nag ndax lii eh, sëriñ Touba li ko ñoroon rek mooy julli yi àndandoo nekk benn te feeñee na ci jataay bi kon lii itam nii mu demee ndax xam ngeen ni fii liggéey bi dafa rëy ndax des na des na yeneen somb yu rëy yoo xam ne sëriñ bi mi ngi ci te dana leen kañ la ko bëgg a tàmbali mooy salle de conférence boo xam ne war naa am fii ci Massalik ak institut bi nga xam ne war na war na fi am loolu ay liggéey yu rëy rëy la yoo xam ne euh, yoonu murid moom xam ngeen ne lu àgg rek ñu ñu ñu ñu tabbiwaat ci leen ndax liggéey Sëriñ tubaa amul nopp la ndax as Cheikh Ibrahima Fati euh, Sëriñ Tuubaa da ko gërëm ay yoon bu ko wàcce mun na ko de yaa ma njëkk xëy te wàcc gu ba tey kon li fi wàccoo rek duma wàcc kon yéen itam na ngeen xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa amul wàcc wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiin liggéey Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha daa wax ne li ko fi yëkkati mooy yëkkati mbirum Sëriñ Tuubaa nee mbirum Sëriñ Tuubaa rek mooy i'laa kalimatillahi al-ulyaa te te loolu mooy laa ilaaha illaa Muhammadu rasuulullaah kon nag ngeen bañ a guddee ñi ngi tàggoo foofu yéen di ñaan euh, suñu borom dimbali ñu euh, yaakaar jure mattale ko nu ci barke suñu li ma am lépp jox naa ko li may amit lépp it dinaa ko ko jox waaye na ma la ko waxee woon rek dinaa ko waxaat ne ko lii ñëw ci suñu kanam yeneen i liggéey duma ko ci wor duma ko ci wax lu dul noonu duma ko fen duma ko sàcc luñ ma jox dinaa ko ci def lu ma amit dinaa ko ci def li ma ko waxee woon ruug yi rek laa ant laa xamul moomuma ko waaye fit wi ak jom gi dinaa ko ko jox ba dara du ci des jërëjëf Mbàkke yow nag maa ngi ñaan yàlla ñu nii ñu ko ànde ba joxe caabi ji ñu àndaat ko ba joxe yeneen i caabi ci barke Sëriñ Tuubaa na nga xam ni daal man ab soldaar laa soldaar nag te ñaanuma yàlla it retraité ñaanuma yàlla it noppalu waaw man daal na ma dal rek laa la maam Cheikh Ibra nekke woon rek noonu laa bëgg a nekke na ma dal rek ndax man sama maam baay Fall la sama baay baay Fall la liggéey rek la ñu xam kon maa ngi lay gërëm ñu àndandoo ko ma lay maa ngi lay ñaanal ci kattanu Serigne Touba ak màggu liggéey bii loo bëgg def yàlla na nga ko def te nga te nga te ñu ànd ko te nga defe ko sa sago te mu ànd ak wér ak gudd fan ci barke ci barke borom Tuuba